moom la ñu yàlla boole fa tabarakallahu mu mel ni sax conference bi moom suba la waaye yàlla dafa dogal itam conférence bi am thème te itam bis bi ci boppam moom it dafa doy thème moo tax ma ni du ñàkk rek nu sànni quelques kàddu kàddu yoo xam ni du génn mukk wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ndax dama leen waxoon ca jotaay ba ñu amoon ca Rufisque ni leen date bi nu tuddee le 19 avril ak le 20 dinaa ci dellu si te itam buñ ko bëggee booleeg waxtaan bi suba dafay xaw a moo tax ñu ne rek nu def la noo tuddee fàttali ci jotaay bi nga xam ni yàlla boole nañu ko nga xam ni ñoo ngi ko daan bokk toog le 10 avril waaye yàlla dogal le 10 avril tombé woon ak bisu korite yàlla nu ko ba le avril ak avril waaye itam ci wàllu histoire lu ëmb lu bari ñaari seetlu rek laa ca bi ci jiitu jàngat la bi ci des preuve jàngat bi mooy daf may rappeler

keroog bi may génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jàpp ci sama loxo anniversaire ba lay wax mu ni ma sudul woon message yu islam ngay jàll ci danaa la yërëm ba wax la nga dem toogal bañ génn ci jotaay ak moom sax laa wax lu ma yonent bi wax bi may génn le 10 avril 2017 anniversaire bi ngi sol boobu costume boobu ngeen xam tegoo mbaxane boobu ngeen miin may génn mu jàpp ci sama loxo boobu fekk na fii dara nekk fi bâche lañ fi defoon 416 la ñu fi tegoon mu ni ma su la xamul woon wala waxuma message yu islam ngay jàllale danaa la yërëm ba tax ma ni demal waaye message yu islam bu koy jàllale mu ni kenn bu koy yëg dañ koy bàyyi mu affronté lépp parce que boobu lu tax mu wax ma ko laata muy génn bés boobu li tëju ci ay borom kurus ak borom asrar ëpp nañu fanweer ñoom ñëpp benn mission la ñu amoon mooy bu ma génn di wax. ma jàkku sànq ba ma génnee bis boobu sama baat bi dafa diis su ngeen dégluwaatee anniversaire bi di ngeen ko dégg yàlla dogal ki ma yaakaar nga xam ni moom su yaatalee rek ku jàllul xamuloo li xaw muy Maodo Cheikh Ahmed kun fa yakun mu def lépp échec tëju ba ñu tëju woon yan doon jàng ba ñu tëjoo yan doon xaatim yëpp échec ma génn ca anniversaire ba keroog ni ngeen ko gisee waxtaan ba ñu pare ma saafonte ñëpp yàlla dogal mu dem le 19 avril 2017. nu dem ba gis ni stratégie mystique bi marché tul kon nañu indi la ñu tuddee diabolisation sos ak créer waaw deux heures du matin bés boobu ci guddi la ma moom la chambre de Tijaan mu ne ni ma lii ngay bind ngeen tuddee ko Facebook mu ni ma toj ko te nga génn ci le 19 avril jëm le 20 avril mu ñu ma lii ngay bind te boobu fekk na ba léegi am na ci jotaay bi ñoo xam ne ñu bari jamono jooju benn moyen la ñu amoon pour jot ma mooy bind ma Facebook laaj ma ma tontu leen waaw. te itam yàlla lu ma doon moytu dama doon bañ ñu ni moom démb ku ko bind la tey toll na foo xam ne rek. nit ñi wuy si nañ ko kenn mënatu ko jot loolu laa doon mooy moo tax ma ci dibe bi waaw ndax li ma ci nekk yëpp Cheikh Tijani Chérif xàmmeloon na ma ñaar mooy kiy laaj ngir xam kiy laaj ngir dañ ko yónni pour muy wut la muy ak kiy laaj ngir déggal waaw kiy ngir xam bu laajee ma toll. ki laaj ngir day wut lu mu yóbbu bu waxee ma bind macha allah incha allah parce que ba mu déggee ñu ni wax na fi ma kañ la wax man benn reproche laa am bi ma ci internet wax ni allah insha allah waaw te sax nag taxul ma mucc waaw dama dégg benn mag mag bu baax muy nettali ni nee na ko sa Cheikh Mbacke la nee na mu ni ko waaw moom ana sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Almaktoum ma nga ca roqam ba rek waaw nee ko waaw mu ah bu doon tax a mucc de dana mucc ndax ku génnul moom xanaa dana mucc waaye nag loolu du la tax mucc fii ci réew man may bind macha allah insha allah te taxul ma mucc waaw ndax xëy nit ñi wax nag bind na waaw le 19 avril laa wax 2017 deux heures du matin Maola Cheikh Ahmad Tidiane ni ma li ñuy bindanteeg ñoom am nga ciy soppe waaye arrêté waaw fekk boobu dafa dafa bëggoon dénicher espion yëpp waaw ma génn ca le 20 avril 2017 ca la coow ba tax ku ne di wax damay dajeeg nit sax man bu ma jaaxle mais nit koy mu ni man man àdduna jéem ñoom léeg-léeg ma déglu nit di wax di wax ba ma ni xanaa kii muy wax bu mag moo ma yaroon ndox wala moom moo ma fi gën a xam ma ni ko gis nga ñooñ ci mës a gis amul ku ma ci mës a joxante amul ku ma ci mës a bokk ak jotaay waaye teewul gis nga ñooñu ñooñu wax ni mokkal ngeen tuuti téere ñu jox leen téere yi ñu wëlbati leen ko ngeen waxtaan ci seen ña nga xam ni seen spécialité mooy sos ñu woo leen ni kaay leen ñu fay leen ngeen sos la ma gën a yéem nag mooy di fay di fay ba fay benn mbokk ba ngay rek dégg mbokk ma naan un ex-disciple ma ni ban ex-disciple ban ex-disciple ana ex-disciple man xaw ma ex-disciple benn mbokk rek ñu ni kii c'est un ex-disciple fay ko nag xam nga ni déglu déglu ma lu mu wax yi titre ba gis dama fii gars yi naan doon nañu ko doon bu ma nii parce que nit dina yëg foo na ko mu dul waxal ndax nun li mu am dafa leer ni bëccëg lumière ñëpp a ci teg seen bopp ma ne amuñu lëndëm te Cheikh Tijani bi muy rëdd yoon bi ñaar la dafa ni ki bëgg jëm aljana ànd leen ak moom ki nanguwul dem aljana bàyyi leen ko bu ëllëgee bu dajeeg yàlla lu mu gis mu xam ne moo tax moom. dañu koy teg si disciple amul ca waaye li ma Cheikh Tidiane Chérif garanti woon moo tax ma ni date bi dafay am solo ci sant ko daanaka ni ma gis nga li ngay bindal teg say soppe yi ma génn la ci muñ ko des na tuuti daa ci am junni junni el Cheikh ya ca ne di bind. tey nga seet ñaata nga seet tene ñu ngi ci di bind di bind ba boo doon recherche El Facebook dootoo xamee koy wax ndax boo gis El Cheikh te boo boog léegi ak lañ ca daj bi yëpp pour fay lumière ba man ngi ci cent un turandoo te ñooñu bu ñu màggee buy bind ci Facebook danañu xam ne xam-xam am na. kon maamu yàlla du di dindi wàllu yàlla du lu di dindi njàngat a tax mu dellu si ci njàngat moo tax nu dellu si ci ndax nit day jàng te Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif lu tax wax ni. lenn li njàngat la ci ñu lenn li preuve la ci ñu déggoon naa ca jamono jooju boobu mbokk yi wax ni neex na fay Medina Cheikh benn kër la tey nag Medina Cheikh ndax benn kër la wala dëgg loolu la ñu waxoon waaw loolu la ñu waxoon mu ni neex na fay Medina Cheikh benn kër la mais problème bi moo tax ma dellu si jiwaat mooy problème mu Sénégal gis nga fii nit dina sol garaam yore kurus nga taw ko ndekete boo yëgoon sax doo ko def nawle ndax jullit rek dana woote diine ba noppi di fay nit naan waxal ma diw naa nga mag nag wax ja bari njëriñ la am depuis 2017 ak léegi waaw ñoo fi toogoon di jotaay bu tuuti tey xool ni jotaay bi toll te ñu ñëwagul moo ko waaw te am ngànt moo ko boobu gërëm bi la wax fii may wax ak yéen suñu xadara ma nga ca Amérique ñuy def xadaratul juma comme nu mu koy defee ñun ci bisu di def xadara kon gis nga moom laa si Amadou Tijani su lay demal bu sa loxo am nga ku wóor ku tee sa loxo te li ma ci gëm la ma wax a tax dafa ni ma ñaari jëw nga am ndax comme jëw yëpp dégg na benn jëw bi mooy sa fit dafa jaaxal nit ñi léegi nga dégg ku ko wax Aliou Moussa bi mos na ma ko wax ni waxtaan ak benn mbokk mu daal ko ndax man maa ngi ba léegi. te dafa dégg wax ji rek nee na laaj ko ko ndax kii bi di dund nga dégg ndax dañu jàpp ni yooyu ku ko wax bu subaa ñu tàggal xam nga ni parce que ku ko wax te waroo ko wax ñun laissez-passer bi ñu am ci nee nañu daal karaama doom te da ngay dégg sax ñu ne ah istiqaama di moo gën karaama waaw mu ni xanaa karaama bi nag ni Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani wax le 29 janvier doy na karaama bu nit seedee boppam kay yow lu ci sa yoon ndax Cheikh Tijaani nee na jant sax boo ko yëkkatee ne jant baa nga leen fu mu neex ni gisuma ko waaye gis seedeel boppam moo xam fu muy jaar moo xam fu muy jaar. wax naa leen ko conférence su Thiès en 2019 ma ni leen bi gars yi di wax mu ne ma bàyyi leen ñu wax rek sa njaboot ñëwaguñu sa njaboot kenn du leen mu ne ma ndax ñooy seedeel seen bopp waaw. li ma wax yi dérangé yi mu ni ma bul riposte bu la kenn rek doy la riposte ma jàngal jamono ba su ma toogee ci jamono damay xam ni ndekete am mag mu la jàngal farata te boobu ku mu doonoon fu ne daw nga fa fu ne daw nga fa fu ne wéeru nga fa waaw ñi dañ lay say yërëm day sax waaw yow wéeru si nii ndax xam nga lu nit mënul comprendre ku baax ñu ni baax kuy wax yiw ñu ni waxul yi kuy leeral xol yi ñu ni leeralul xol yi te yow may wax leerul moo la gën a leer moom waxuma ci baatin de ci zaahir

ba ñu demee mu ni ma naa la seet si waat bi muy ñëwaat mu gaari oto bi ba noppi ni dama amee ay bagage bi mu ñëwee wuti ji bi génne fauteuil moom la indaal génne napp yu mag yi génn lu ne bi ñu toogee mu ni ma xam nga lu ma mënul digérer mu ni ma nga recevoir ma toog ci seen en plastique ñun suñu bureau yi Dakar ñu toog foo xam ne ci ay fauteuil ak climatiseur bi dañu ma ak ñi nekkoon ci yàlla toog ci seen en place bi ma recevoir te ñun suñu bureau climat nga fa fauteuil nga fa lu nekk na ma ni foog ma jënd fauteuil yooyu indil la ko nga toog. xam nga lu tax ma wax ko dafa mës wax yonent bi yonent bi dafa jógee ci mission te bi ci benn basan basan baa ngi xotte Umar xool ko ba yàgg ni ko am na lu ma nàkk yonent bi ni ko lan la mu ni ko ñii nga xam ne ñu ngi ci étage tey ñu mel ni Abu Lahab ak ñeneen pourtant étage yooyu yëpp sa barke dañu ko ànd te ci façon bu xotte ñoom ñu nekk ci étage di ko di yàlla yonent bi ni ko dëggal waaye faw ma la mu ni ko lan la yonent bi ni ko ndax da ngay jënd nubuwa ak alal mu ni ko nubuwa buy jaay ndax alal mën na ko jënd mu ni ko alal mën na ko jënd mu ni ko moo tax ni ko kenn ku ca nekk am na lu la yàlla cëral loo xam ni boo ko tegoon di ko jaay tey kenn du am de waaye yàlla dogal ñu nekk ci ak suñu malaan xam naa ñoo ñu dimbali sax wëral malaan bi àdduna ndax am na ñoo xam ne bañ ko déggee la ñu daw si jël wér dal nañu bare ñoo xam ne dañu ñëw di jël tarixa bi boo leen laajee fu ngeen xamee mbir ñu ngi ci contre yi laa ko dégg parce que nit nit ñi doxuñu ay lii miine béréb yi ñuy waaraate comme que miine lu tey mooy ñu bari da ngay dégg ci seen wax nga xam ni ci business am lay protéger protéger wu leen ndax day dem ba intérêt bi ñu war a jiital muy muy muy priorité bi di intérêt lumière bi mais kenn du ko jiital dañuy jiital business jiital yeneen mais ñu fekk loxo bi ñu loxo bi ñu téye loolu rek moo ñu moo ñu ñor. waaye gis nga échec ba jeex na ñu ànd teeg ñii ca Arafat ñu gisati réalité ya fa nekk ñu waxati waxati créeloo ay nit histoire gis nga léeg-léeg dafa am histoire yoo xam ne dama koy dégg xam nga wax a war a bés man maay bés ndax am na lu mu moom xam nga naa fi Maroc rek xëy dégg benn mbokk toog mu dégg ko vocal mu naan ba mu ñëwee fii ci zawiya bi ba ma ko gisee yàlla Mouhamadou Diop moo ma woon ni ma am nañu ñeme yàlla ndax mag moo ma àndul ma ni ko man danaa jëm ci Cheikh Tidiane Chérif di jaar ci nit kooku mënul man danaa dem ba ci Cheikh jëm ci moom la Cheikh xabroom ni ma naan maa ngi fay jaar ci nit ba mu naan ba ma gisee ba ma jaaree ci demalu sax ndax am na lu mag moomu waaye yooyu yëpp yooyu yëpp boo amul yàqin ñu sànk boo amul yaqin ñu sànk te yooyu du dara xam ni nun euh, daf nuy affaiblir au contraire daf nuy yëkkati ndax man dama am benn philosophie wax na amul kenn nu ko fi am maqaam ma toog di justifier sa kanam quoi que ce soit te ku xam Sénégal bis boo duggee ci pièce boobu di justifier yàqu ndax ndax ndax ndax dootu nu la sax def naw dañ lay fooy réalité yaqin moo am solo te gis nga boobu li ma gëm mooy li suñu yaay Adja Anta Sarr waxoon ci doon ko jooju ni bay boo nga tëj Facebook bay boo nga tëj YouTube bay boo nga tëj WhatsApp foo dem daaj la fa fekk ndax yaa ngi woon te réalité boobu ci ne parce que boobu dañ ni comme génn sa Facebook kay jërëjëf jeex na ni dox sama mission représenté ma di samay xalifa ci ay alam yu dul alam shahada bii kenn xamul ngi koy wax mbokk yi fii ni leen ci koor bi kenn ci ñoom 76 être êtres la ma indil ñu jëlandoo wér di ci benn place 76 seize êtres la yoo xam ne wér na leen yëkkati ci benn place te moo jàngale mission bi foofu ba noppi indil ma leen keroog ba ma ñëwee daf ma nuyu ci koor ci chambre ramadan bi wëlbatiku eh, ni yéen na ngeen ma nuyu rek ndax sang bi amul jot dix minutes la ñu ma jox leen wér mu ni naa leen jàngal tari tarbiya ba nañ dem soixante heures te kenn kenn ci nit ki leen rax ki leen rax ñoom bi ko laajee ci bi dëkke benn dëkk la ma wax boo xam ni xam naa mag ñi fii xam nañ ko man mosuma sama dafa ni ma côté Bidjen côté Bidjen laa kooku ñii dëkk côté Fass Fall am nañ man nag xam nga dëkk ba tax moo ko teg sama tànk ki leen rax bi ma ko laajee ni ko yaa te kenn du ci nit ñooñu dara tënku de te lumière bii ñu soxla fii ñoom lumière boobu la ñu soxla looloo tax fàttali rek ñoo tax

moo tax nu mujj Seydou Mouhamadou Amine Bara bii rek lañ moo koy wax 2017 am na ñoom fekkoon ñu dégg coow daw ñu ci bari ci ñoom tey ñoom ko sonal yor numéro lu ñuy defaat bëgg sànni ñii di justifié naan mosuma dem sax dafa fekk rek nangam ak nangam ma dal dama feebaru man lu ci sama man lu ci sama man malaan bii laa muy malaanu Cheikh Tijani sama mission universelle laa kan. amee bu ma demee tournée nationale fa ma war a waxtaan la virgule du ko su ma ko waxee ba noppi defal nit ñi ma tax a jóg defal nit ñi ma tax a jóg ndax man Maodo Cheikh Ahmed Tidiane defal na ma ko bi ma defaree ba noppi li ma sant ma defal ñeneen ci barke ba ma def waaye bu ma compté ci sa bopp kooku du ni sax fi bis ya, say di xalaat say nopp c'est parce que da ngay ak say ci ki la sopp rek nga war a inquiété wala yonent bi influence bi la doon bari yëpp ca màkk ànd pression bi gars dañuy wax wax bis bu wax bi ko man yéen lay gëj ci siraatul mustaqim yéen a ma waaye ñële nga xam ne ñu ngi loolu mooy sens bi loolu mooy sens su loolu moo tax bi mu gisante bis bi dajee bis ya nga xam ne lu bari xewoon na ci ma ni kon nettali histoire dana dimbali nit ba mu xam démb ak tey loolu solo nag boobu fii dara nekk. li yàggul 2017 rek la wax ñu fekkee woon anniversaire boobu xam nañu li may wax bâche la ñu fi teg dara nekkul fi ah 416 la ñu fi teg ah, ñu génn fii waxtaan la ñu a waxtaan pare lu nekk lu mu dégg lu nekk lu wax ko nangam nangam ñoo xam ni sax yàlla dogal na kenn mësula ci gis waxatuma la ak nuyanteel waaw man ca laa jógee wax leen benn wax ni na ko def attention de gis nga Sénégal gii. ma ni ko lu nu mënta waxal nit man mii du ma ko gëm tànk teg ko ci sama bët ñu ni ma lu tax ma ni ndax dama leen xam ni moo tax bu leen dégg rek ñu ni diw nangam rek ngeen eh, diw nekk noonu la mel déedéet réew mooy bindoo noonu réew mi moo bindoo noonu gis nga maa ngi koy nettali ñoom taw dañuy ñoom Cissé ñoom yëriñ fekke nañu laata élection yi balaa ñu àgg ci jouru vote bi boobu maa ngi ci xeloo ci quoi di ma génn benn guddi di leen wax ñi ni leen bi ñu ñëwee fii di ma nettali fi ñu jaaree nit ñi am na ci ku ma ciy wax ni gis nga dama ca dégg man moo tax ba ma déggee ñuy wax ci yow sax dama njëkk ni sos rek leen tax ñu maa ngi koy nettali ñu ndax ñun nag dañuy communiquer ak le temporel ak l' spirituel te le temporel ak l' spirituel dara rëccu ñu ci nag dara rëccu cette fois-ci dama détaillé wul waaye rëcc na mystique yu bëri rëcc na mystique yu bëri xam nga mystique yu bëri li ñu waxoon ci élection yi dëgg na woon ci ñoom dafa am biddéew bu ñu leen wanoon te biddéew bu bëlëf la woon ñuy wax di wax di wax di wax ba réalité ñëw ñu ni waxtuma woon ñii na ñii moo taxoon ma wax nangam nangam mbir mi jéem waxoon naa leen gis nga yàlla bu confisquer le pouvoir maandu ci lu am nga ñu dogalub yàlla waaye boo ci bëggee dugg ci istixaara ak yooyu ñu xamul booy daalu ci kàmbu daf lay def te lu yéeme la te lu yéeme la te loolu gis nañ ko Sénégal ñëpp teg nañ ci seen réalité yi la ñu xamul dëgg-dëgg na ci gën ñu bëri nag mbokk yi dañ koy faral wax ay yéen nekk ci ginnaaw nangam mëni man ci man nekk ma ci ginnaaw nit man ci ginnaaw Sénégal laa nekk nekk ma ci ginnaaw nit man ci ginnaaw Sénégal laa nekk te yàlla dogal na wax naa leen ko ma ni leen man élection yi man dama sax wootewul parce que man sama carte d'identité ni ma ci sonne sax yàlla xam ñaamu ci ma ci dimbali heure bu ma defaree carte d'identité mu nag ko defee ne quartier daal di tëj mu lakk depuis ay année am na bis dem na ca ko xulub ca ka yore woon mbir yee sax te police yàgg na kooku maa ngi liggéey ca Cheikh Jibril Daay bi yàgg na jumaa ji tisbaar laa dem ñu wax wax wax mu ni mu mujj ma machine bi la ma ni machine bi amul amul loxo amul tànk kii yor machine bi di bës kooku la moo yor kër ñu waxte waxte waxte bu mujj ma ko ni dootuma ko sax dugg dama ci sonn sër bu ma ko wutee mu nag bu demee ba yu war a génn yëpp génn sama bos bu génn xaw ma nag ñaar mi xam na ko mi ngi nii ko ko ci dimbali mu ñu dem jëli ko moom indee bi ma ko indee noo vote lañ ma ci bind mooy kii mënul vote ah ma ni comme ñoom imam dañuy dem di vote man doo vote ma boole ci sama course. non vote lañ ma ci bind. ñii di wàcc ma ni kon nag man ma vote ci sama course comme vote lañ ma wax. bureau yi tam yaatu waaw wax la ni pouvoir temporel la waaye pouvoir spirituel waxoon naa ko ca Dakar ni leen moom moo ëmb pouvoir pouvoir spirituel moo ko doon ñun ci benn parti nekk ñu ci ginnaaw benn nit ci ginnaaw réew mi Sénégal la ñu nekk waaw lu koy jëriñ ci lu ko jëriñul suñu yoon nekk te mbir duñ ko defee nu ko ñëpp di def mooy wooy nit ñi naan voilà kii man lay soutenir yi lay jàppale ci rek déedéet ñun fa lu toog ci biir panfare boobu ca xablu ko fa la ñuy toog lu ñu war a def moom la ñuy def lu ñu war a wax moom ñu ne gis que ni bu ñu ko wayee bu ñu génnee ku ni ah kañ la ñu ni kañ la ah ànd ak yéen. déedéet loolu la tax kenn du ñëw suñu naan walaay ni ñu naan def nag te loolu la réalité bi te li may wax dafa am bële daaw bi ñu ngi nii moom moo yore appel yi mën nga ko seede koor gi fii ñaatu politicien leader de parti ñoo ko fi woo pour rencontrer sànni bi. ku ko ci woo daaw dëgg la sang bi du élection yi tax mu tëju moom koor gi dafa daan tëju moom ñu élection yi sax moo tax mu daaw bàyyi leen ci biti moom koor wax leen kenn am na mu jënd ko léegi sax euh, daaw bi li ma wax bàyyi ma dem ba ci biir ña ma yónni woon nga waxaat ko ñu dee ndax dañ ma forcé pour ma def le tout pour ñu gis sang te su ma demee nii rek dañuy jàpp ni dama ñàkk pas-pas wala sonn ma ci wala gisuma pour wan leen ni naa ci mënuma ko gis kon mënoon nañu def ni gars yi xëy suba ku nekk ñu féete fa ku nekk ñu euh, woote fa leneen waaye loolu dafa dul suñu idéologie ndax ñu benn wax lañu lañu am wax ju ñu am wax naa leen ko ci rifis bi ñëpp a ngi toog ma ne leen kenn ku nekk am nga sa conscience tranquille tànn nga sa carte diw doy na la demal sànnil ko lu yàlla dogal nga xam ni yàlla loolu dogal ndax man li ma mooy kilifa gi moom ci boppam ki mu bëgg fal tey mu dee mën na taal mën na pouvoir ñu ci sonni naan taalibe yi kaay leen jàppale ci loolu rek problème boobu la. ci biir kii rek kii laa ko def di wax taalibe yi fa taalibe yi jënd ndax kooku ñu gis-gis jaww yow am nga mën nga kanam mën nga far mën nga forle yow kay fajal jarul naan kaay leen dimbali ma ci kaay leen groupe boo fi de waaye dafa fekk de lu ñuy wax naan euh, toute vérité n'est pas bonne à dire. te dëgg yëpp a neex a wax waaye sëriñ bi tàgg boppam mën naa karaman nangam mën naa déstabiliser sax nangam naa bloqué clavier soo ma nee bëgg naa fal jiw dama naan sëriñ kat dimbali ma fal ndax man mii sama benn voix du la doy te yow mii mën nga bloqué clavier rek kon fal ko jël waaw mais toute vérité n'est pas bonne à dire loolu tax suñu yàlla dimbalee ñu daje ci jour yu mel nii te ma diggoon leen te ma bëgg lu ma leen dig ba di ko wax ndax maa ko wax bénéfice di leen dat la boo xam ni naa ci ñëw waaw ñëpp ngi doon xaar kañ laa ci ñëw ma wax leen ni date bi man lii laa ciy jàpp entre le 19 avril ak le 20 avril te tey réalité boobu moo am na ñu ko fekkewoon am na ñëw ci jotaay bi gis mais ñu wax leen ni message bi discours bi amul dara lu ci changé la amoon démb ba léegi moo continué di te ci loolu ñu continuer flambeau bi ñu dénk it flambeau bi loolu la laaj flambeau boo xam ne nag ni ma ko waxee joxu ko benn part te war nga génn même Afrique kooku nga xam ne liggéey bu jafe liggéey bu ne waaye li ma waxoon rek gis nga mbay ci sa réew mi daal waaw balaa ngay defar bitim réew da defar sa réew mi nekk ba noppi soo koy defar bitim réew waaw waaw te loolu mooy réalité bi waaw nit buy tàmbali da ngay ci sa réew. maa ngi bale bale sérieux ba pare waaw man xaw naa fi bale sax ci campagne bi dina doy sax wallaay doy sax bale da ngay bale sérieux ba noppi ba mu set bu setee ba noppi nag te neen foo génn ak bale rek ñu naa ah, bi macha allah waaye maa ngi bale bi te bale goo setee kooku mënul waaw kooku mënul rek kon nag yal na yàlla def muy sunu njëriñ waaw yal na yàlla def muy sunu yiw waaw waaw yàlla na yàlla muy suñu organisation yëpp tabarakallah waaw nag ñu koy waxee rek citoyen lañu xam nañu liy xew xam nañu organisation yi ya ca làkk ko te ñuy redouté waaw te am ñu ma leen ca waxoon waaw luñ ca am ndigal xam nañ koy organisé dañ ko organisé te boole coow waaw ndax man li may wax ak yéen ngeen koy dégg xalifa Moustapha wax na ko keroog pour rek prévenir leen li may bañ mooy njaboot bu dara bett waaye nag am na loo xam ni suñ ko bëggee waxtaan kat kay waxtaanal rek lañ koy wax te mooy ka nga xam ni dama gëm ni loo ko wax lu mu ca bëgg def doomu aadama lu ko déet muy moom macha allah ñu se te moom mooy suñu sauveur moom mooy suñu sauveur te moom lañu am te moo couronné lépp luy mission universelle lépp luy mission universelle kon nag ñun yéen ñi fi nekkal yéen la ñu xam ñaata li ngay dégg ñu xëy suba naan li jëloon naa wér de bàyyi naa Cheikh Tijani bàyyi naa tarixa Tijani lu mu wàññi tarixa bi lu mu wàññi Cheikh Tijani ah, lumière lumière la góor gu baax góor gi Mouhamad euh, Cissé ndeysaan mu amee mu génn àdduna daa nga ko wax ah, naan man su ma déggee ni naan bàyyi naa ma ne ah ku yàlla narul fay ni du la liggéey te ku narul jëriñu it am na loo xam ne doo des ba yow am fi am nekk ah ñoom lépp dañ koy jël avec ñoom lu ci nekk dañ koy jël avec philosophie parce que ñoom dañu xam ni nit su àggee ci màtta ba mën seede boppam loolu màtta ba gën a du ko kawe waaw ki baax xam na ni baax na ki baax xam na ni baaxul kii jéem xam na ni mi ngi jéem ki nekk ci yoon xam na ni mi ngi te loolu mooy li mu Cheikh Tijaan bi Sëriñ kon nag ñu ngi leen di remercier di leen ñaanal yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlana Cheikh Ahmed Tijani Chérif mu yàgg di leen defal lépp loo xam ni seen mébét bu gënul si yéen it mu fexe bu mu gën si yéen mu defal leen rek ñoo leen ci sant ci fànn yépp nag waaw di leen ci ñaanal yàlla tabaarakallah ni ñu ma waxoon ni ma dafa am ñu bëggoon a jël wér bi ak ñoo xam ne dañu bëggoon a yeeslu ma ni comme am nañu jotaay bi su ko defee rek ñooñu suñu mënee jege si ñu jege si incha allah waaw ñu jàngal leen fatiha ci ndigalu borom jàngal leen fàtte ci ndigalu borom incha allah waaw barakallah incha allah